الضالين هل أتاك حديث الخاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من دريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية fi jannatin aaliya laa tasmahu fiha laaxiya fiha aynun jaariya fiha sururun marfuatun wa akwaabun mawduca wa namaarixu masfuufatun wa saraabiyu mabsuusa allahu akbar allahu akbar